position wu euh, milliardaire la ñuy jàkkaarloo ba si yàgg mu ne non du ma wax sax ndax kon après donc muy ne euh, mu ngi mel ni ne kon euh, xëy na mën nañu am yaakaar que ni ñoom dinañ sampuwaat. kon Amadou Ba bi mu demee Màkk bi mu ngi soog a ñëw. ah xëy na daa jaaroon France wala. en tout bi yàgg na. am na ñooy costume la ñëwee. mais moom ah, sax ñëw la sax mais moom ñëw na am na ñëwuñ di. Ah, jaaroon na xam naa France. mu jaar shopping yooyu quoi defaru yooyu soog ah, a ñëw en tout cas moom sax ñëw la. waaw moom tane ñëw na ah, ah, mi ngi menacé sénégalais boobu ba léegi te neewoon na dina ñëw moom mi ngi menacé boobu ba léegi. dafay vidéo di menacé naan dina ñëw bu a buy ñëw du teel a ñëw ah, lu mu wax sax. nee daal sénégalais ku ci filmé këram naan diw xaw moom moom lii lii lii dina dina jël sa bakkan. ah jël sa bakkan xanaa kooku mooy kiy teewoon pistolet. wala du loolu ci campagne am na ku mu gisoon waaw am na bi ñu manifester fii bëgg a am bëgg a am élection. waaw am na am na ku génne woon pistolet di tiire ci kaw nit ah, kooku la. ah est-ce que ah, dafa génne waat dane bi yoon ku filmé ah, këram it ku dina jël sa bakkan. xanaa mooy el pistolet yeru koy wax li ma mooy mi ngi fële. ëggaan. waaw hmm, Pape <laughs> en passant quoi vite fait waaw mooy El Pistolero bu baron baron moom. waaw ah. ah, baax na. voilà mais baaraam moom baaraam moom la wala pistolet bi ah non non ba non lii baaraam la. ah non lii baaraam la. non moom ah. non lii ma gis nii baaraam la lii du lii du pistolet. Hmm. non li baaraam la quoi. yow ñëpp ne pistolet nga naan lan xool baron di zoomé. kii kenn demul mu des moom tam. pistolet la de. waaw ah? ah, pistolet mëq mëq mëq doom la. ay mëq doom mooy bu gudd bi. waaw mais am na mëq doom yu gàtt. ah am na waaw ah, mais naa reewal weer. waaw mais euh, en fait euh, bon. pour pour pour la démocratie sénégalaise. Mm-hmm. Euh, c'est c'est bien c'est bien que le pouvoir actuel. am une opposition parce que tamit euh, pour pas que ñu tombe dans les travers euh, de la facilité comme les autres euh, mhm. pouvoirs li nga xam ne bon xalaatuma ko mhm. mais lu mun a nekk la parce que nous sommes des humains Euh, c'est très bien que ñu am une opposition léegi mhm. nag ça dépend de quelle opposition Amadou bi nga xam ne dernière élection yi génn na ci avec trente cinq pour cent il est arrivé deuxième avec 35 pour cent. Mhm. nekkoon ci parti au pouvoir cest à nekkoon euh, euh, ci magistère u président Macky bu mhm. euh, dellu see war a je dis war a. parce que ba tey jii rien ne nous ndax Amadou Ba bëgg na vraiment faire de la politique. Mhm. man gisaguma ko gisaguma ci doxinam. ci ci ci ci ci ci ci euh, lu mu ñu jota wan mm-hmm. ndax c'est quelqu'un qui est vraiment intéressé à se battre politiquement c'est-à-dire à se battre mën a dëggal boppam politiquement mm-hmm. waaw euh, ça peut être une surprise et j'aimerais bien être surpris euh, de le voir mu ñëw tey occuper un peu le terrain politique parce que tamit logique pour logique Mhm. damay dégg souvent certains dire que c' euh, le président Macky le président de l'APR qui est le patron de l' mais je suis mhm. désolé euh, bu ñu demee ñoom ba nangu ni que Idrissa Seck qui était arrivé deuxième lors de la présidentielle de mhm. euh, moom moo war a wan sénégalais yi de quoi il est capable moom moo war sénégalais yi lan au-delà du fait de son compagnonnage avec Macky Sall. de quoi il est capable et lan la bëgg a offrir concrètement aux Sénégalais. mais je dis encore une fois on a besoin d'une opposition a et loolu c'est pour le bien. de la démocratie sénégalaise voilà. Mm-hmm. c'est-à-dire mm-hmm. toog euh, nii. Euh, un pouvoir même si c'est un pouvoir qui a été plébiscité par, plébiscité par les Sénégalais mhm. mais li ñuy soxla mooy am une opposition bi nga xam ne temps en temps wala mhm. régulièrement dana monter au pour dénoncer wala pour tirer wala pour sonner euh, les alertes et consoler on en a besoin mhm. que c'est une bonne chose mais comme Amadou Ba tey jàpp nañu ne c'est le chef de l'opposition man li xaar mooy que moom qu'il revête ce manteau du chef de l'opposition ñii nga xam ne ñoo nekk ci APR wala Benno bëgg ko topp toppoon ko déjà ci présidentiel bi topp ko bu waa APR yi wala bu président Macky Sall bëggee téye parti mu dem créer beneen parti wala beneen mouvement mais l'essentiel on attend euh, des acteurs politiques une bonne opposition dans ce pays. Mhm. justement surtout si li Pape Sané mujjee wax mooy euh, avenir am aussi itam ci benn bokk yaakaar ndax it tamit euh, gis nga ne Amadou Ba koo xamante ne bii kuy wëyandil la ak euh, boobu la wala koo xam ne nii dina daal di beru. pour pour wéyal pour wéyal ci Benno Bokk Yaakaar. Mhm. d' abord mu am maîtrise ci yi nga xamante ni mooy ab alliance pour la république bi nga xamante ni moom moo moom moom daanaka moom mooy euh, locomotion bu Benno Bokk Yaakaar. Mhm. alliance pour la république boobu quand même. Mhm. Macky euh, def na euh, déclaration. écrite balaa muy dem que ni moom mi ngi continuer di nekk président ki nga xamante ni mooy APR. donc Amadou Ba bu bëggee tey ji nekk la figure de proue de l'APR. Mhm. faudra quand même mu faire mhm. face à Macky au sein de l'APR. Mhm. ba euh, waa APR. camp yi fa nekk. Euh, tranché clairement kan moo ci euh, war nekk opposant parce que Macky Sall toll nii jamono ji talul opposition. Macky talul opposition jamono ji. Euh, li mu taal jamono ji mooy euh, li nga xamante ni mooy liggéey bi nga xamante ni Macron moom la ko jox. Mhm. muy wër adduna bi fu ne mu ne fa naam dara mais di lijjanti loo xamante ni yoonam nekku ci. Mhm. donc Macky Sall instant bi ci loolu ci loolu la nekk. Mhm. ki nga xamante ne moo war a incarner opposition bi nga xamante ni euh, Benno Bokk Yaakaar la war a jóge parce que ñoo ñoo am 35 pour cent ci élection bi nga xamante ni moom moo passé. naturellement ki ci gën a jekk mooy. Amadou Ba. Amadou mhm. Ba moom euh, gis nañ ni quand même mhm. laataa ñuy dem élection am na lu bari loo xamante ni euh, mhm. ay ñagas-ñagas am na ko ci digganteem moom ak euh, ki nga xamante ni ñoom ñooy waa APR ak ki nga xamante ni ñoom ñooy waa Benno Bokk Yaakaar donc pour ban nag li mu war a njëkk a def mooy leeral askanu Sénégal lan moo xew ci diggante bii nga xamante ni euh, moom lañ ko choisir mu nekk candidat ak problème yi ci survenir ba keroog mu aboutir à leur défaite. Euh, le 24 mars. Mm-hmm. Euh, je pense que la première déclaration quand même sénégalais yi xaar nañ ko ci mu expliquer les sénégalais li ñu doon ruumandaat ci suuf yëpp ci problème mhm. digganteem ak Macky te barki démb boo njaay benn ministre mu ñuy wax Abdoulaye Seydou dem ci kanamu télé bi mhm. wax ni effectivement am na problème ñoom ñaar parce que Macky woon na ko mhm. euh, bi nga xamante ni tànn tànn na Amadou Ba ba pare ni ko dafa bëgg a génnaat ci tànneef boobu mu ko tànn parce que Amadou Ba mënul gagner élection yi donc loolu yëpp foog ñu foog mu doon loo ba ñëpp xam au moins ni lan moo xew digganteem ak Macky Sall. Mhm. parce que s'il ne va pas au clash avec euh, Macky mhm. va continuer de diriger euh, aussi bien. Euh, li nga xamante ni mooy alliance pour la république aussi bien aussi ak li nga xamante ni mooy Benno Bokk mhm. Yaakaar te bu fekkee Macky moo koy diriger moom il sera dans l'ombre de il sera sous mm-hmm. l'ombre de de de de Macky Sall. Mm-hmm. Euh, te noonu munu cee euh, munu cee diriger opposition. Mm-hmm. munoo ni yaay leader opposition ba pare te ci ay waaw Macky bi nga xamante ne nekk fa mi ngi bitim réew. di liggéeyal beneen chef d'état ci ngay wéy donc nag pour man le premier acte à poser d'abord. c'est le divorce d'avec Macky te euh, loolu pour man mooy wone nag ni. comme ni Pape Sarr doon wax léegi dëgg-dëgg fësal na yitteem bi mu am ci def politique Sénégal parce que jusqu'à présent monewul dara. Mhm. loo xamante ni mooy wane ni kii bëgg naa quand euh, def politique. parce que mhm. jusqu'à présent Amadou Ba euh, mun nañu munuñu munuñu wax ni dafa def politique. parce que mhm. poste yi mu nekk yëpp dañ ko mhm. euh, fa moo yóbbu que base politique. bu ñuy wax ci Amadou Ba. Euh, base politique amul. parcelle boobu lañ ko fay gagné. ak Grand Dakar biñ ni foofu la foofu la foofu la foofu la foofu fekk baax dañ ko fay gagné. donc fi mu xamante foofu lay voté bureau de chaque fois. dañ dañ koy fekk foofu gagné ko. donc kooku comme amagoo base politique. dafa goo benn prouesse bees ci ci ci ci politique. Mhm. quand même tey jii fas na eh, jot na nag bu fekkee da ngaa bëgg vraiment dagan eh, baatu askan wi nga dëggal sa bopp. nga dëggal sa bopp daal di nag ni Macky Sall maak mhm. moom ñoo doon ànd mais léegi jeex na. Mhm. maak moom àndatuñu bu fekkee. Uh, da ngay ñoddi ñi nga xamante ne ñoo ànd ak yow uh, ba ak ñi nga xamante sax bëri benn pàcc boo xam ne ànd ñoo ak yow waaye mën nga leen a ñoddi nga ñoddiwaale leen bu fekkee da ngeen di génn APR former seen propre parti ngeen def mm -hmm. parce que Euh, il faut quand même ñu am mhm. benn opposition te li ñu gis jamono ji euh, mooy mhm. euh, amul benn opposition bu taxaw mhm. face au régime de Bassirou Diomaye Faye parce que gisoo ba léegi benn leader buy taxaw di di wax donte wax peut-être teel na mais toujours est-il que opposition bi war na fee nekk quand occuper terrain bi d'accord pour taxaw askan d'accord xam naa ne bu ñu yéexee tuuti baron daf ñu fiy fekk rek xoj ñu baron bin bin may jàmm nañu may jàmm vraiment bin bin quoi euh, Pape Sané rapidement nga yóbbaale ko tëjaale ko parce que tamit mënoo fi toog te duñ la ko laaj ci actualité la muy gendarmerie am na patron bu bees si on peut comme ça muy le général Martin Faye euh, ci